man procureur hôpital réen mi xaw ma man man damaa yor ceet goo xam ne lu ma bëgg a gis ci nit dama koy dugal seet ko man sama jëmi bopp laa la wax ñoom lañ wax weddiwu ma ko waaye maa ngi lay giñal ci alxuraanul karim bi ma dugalee di xool mbiri président Ousmane Sonko wallaahi lancim damaa tiit nañu ba doomi jàmbur ji képp kuy ab patriote na nga def basmala mooy bismillahi rahmaani rahim juróom fukk ak benn lii na ko patriote yëpp tas de ko def suba ak ngoon basmala mooy bismillahi rahmaani rahim juróom fukk ak benn nga ci ñaanal président Ousmane Sonko basmala mooy bismillahi rahmaani rahim juróom fukk ak benn sa course nga yor nga ñaanal ko la ca des nag ñun ca man suñu kéemtalaay kattan danañ ci góor góorlu